bismillahi arrahmani irrahim asalaamualeykum wa di nuyu bokk yi teew ci jataay bi yépp di ko tàmbalee ànd ak kooku jégglu ci sunu wayjur yi fi teew xanaa di wax rek ne téere bii nga xam ne moo ñu fi tax a daje tey téere bu am solo la boo xam ne ku yàlla dogal nga am ko li ma lay ñaan rek di ko fàttali mooy ku ko yóbbaale rek fexeel ba boo demee bu ko teg gaawal suubu ci rek te te jàng ko boo ko jàngee da nga xam ne téere dëgg la téere dëgg la téere bu xam-xame la boo xam ne buñ delloo ci nattukaay yi nga xam ne ci lislaam ci la ñuy mën a natte ne lii la boo ci delloo da nga xam ne téere bu xam-xame la téere la boo xam ne it jàpp naa ne ci jamono jii ñu toll doy na sëkk ci mën a xamal nit yoonu morit lu mu doon dëgg-dëgg xamal ko sëriñ bi ku mu doon dëgg-dëgg xamal ko it lenn ci gàllankoor yi nga xam ne mi ngi ci sunu kanam ak nu ñu war a mën a def ba jéggi ko ndax boroom dafa njëlbeenoo leeral yoon wi lu mu doon tàmbalee ko ci sëriñ bi woote yoon wi lépp itam mu am ci tawféex ju mag mooy ndax fexe na ba lim wax ci yoon wi lépp waxulu ci Serigne Touba lu waxut loolu am solo la ndax leg leg ñu bind top sun khalima leg leg bam yobbe ñu ñu wax lo xamne dañ koy le Serigne bi ta fekk ñoko wax waye Serigne bi waxuko leg leg mu dal ñu te duñ ko yëg waye dafa fexe ba sa yu nek lu mëna doon Serigne bi day melni mom lay laaj serigne bee wax mu jëlaat loola di firi waat waye Serigne bee wax mom lim doon euh def ci téré bi ab critique bu am solo. boo xam ne critique gu xam-xam la ndax dafa wax ay jafe-jafe ci xaaj bi mu jagleel tey yoon wi muy réalité yi waaye boole ci itam jafe-jafe yi mu wax mu wax ay proposition yu am solo ci loo xam ne ay solution la yoo xam ne buñ ci tegee wala buñ ci jëfee dana tax jafe-jafe yooyu yëpp dana soppeeku loolu lu am am solo la waaye itam ma am lu ma yéem lool ci téere bi te mooy boroom ci spécialité am philosophe la dafa jàng falsafa ak ilmul ijtimaa waaye ma gis ne donte ne li muy wax boo ko jëlee lépp mu yoonu murit mooy ci tasawuf lay wax waaye taxut mu wax waxin wu kenn mënta xam dafa jël waxin wu simple wu yomb woo xam ne ku dégg arab yu yu yomb da nga mën a xam li mu bëgg a wax lu mu doon tafal sufuut daal ba nga xam ne day mujj réeral maanaa yi ci yi baat funkut tam di dugg ci ay istilahaat yu compliqué ak yu mel noonu kon téere la bu ama am solo bu xam-xamee boo xam ne bu mat a bàyyi xel la jàpp naa ne gannaaw masaadir yu mag ya te sax bu ñu ko waxtu yaatoon ñu wane ne am na wuuteeg ñoom manees na ko jàppee ca ya ca tege rek ca booba waaye nag di sant Serigne Ahmadou bu baax ndax itam ak njabootu seigne Cheikh fadi Fall gi mandal seigne sëñ seigne Cheikh fadi Fall gi mandal gep ndax nit dana lu ba tege ci yoon wi mu tege jaar ci liggey lu reuy bako fi waye du fi baye njabot gu ko mën taxaw ginnaawam Cheikh Mouhamad Fall ibn Baba dana woon idal fata mata an urfin wa an kutubin wa kana da waladan falyaxfad kutuba in daat alkutubu kutubu yatbauha fa laysa da waladan wa laysa da ka boo fi bàyyee xam-xam bu rëy te bàyyi woo fi ñu ko sàmm matoo bàyyi ñu ngi fi bàyyi matuñ doom loolu nag ab soññee la lu mat a bàyyi xel la yàlla na yàlla taxaw leen sàmm leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.